la la la

بخدمات Guru naa dañ koy jox mu daal di jox li nga xam joxe li nga xamante ni moom la ñu indiloon. nammee ñu ko namoon nag bëgg nañ nag mu woyal xale bu baax a baax ba ñu bég ñu door koo yewi mu door dem bu xale yi doyul doyulul rek baab lu dem ci lay toog bëgg naa nag balaa moo dem ngeen di ko doyal nañ mu dem bu doyul rek lay des kon pap micro baa noonu allah waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu di leen rek di leen ziara gàttal daal nuyu nañ imaam rek jël suñu yoo teg ko ci loxoom la ñu yóbbaale képp koo xam ne rek yaa ngi yewu ci quartier bi di lu baax dëgg yàlla ndax ku ne xam ne ni bisu tey moom xam na loolu waaye wallaay ku sañ te bañ rek sañal na nga wax dëgg yàlla te nag comme ni ko yàgg waxee rek loolu moo ci nekk muy iddo Idrissa bii dañoo teg foo xam ne am koo yàgg wax ne leen lu ma jàpp loo ma jàpp ko lu ma bàyyi loo ma bàyyi ko loolu waral bi ma woy rek mani nit ñëw ma ci teg baat waaye nag wax ko li ma ne nee naa ko sëñ bi nag ni ma mën a gàntal waaye waaye yëmbal dañoo tànte li ñu salaay salaam te ne kenn dooy len ci kudul sama jëmm ji donte ko xeebu na waaye ya, nag yow ñëwuma la ñàkk ñëwal man ko daal dinaa ñëw ba mu guddi tuuti rek incha allah ngeen yeeyuñu ndax alxaaji abi mii ni koy nii di ko ziar moom ñi mu àndal nii rek ëpp nañ ci guddi gi ci taxawee ko kon nag ñoom loolu lépp seen baax la nuyu nu àndal ñëpp ziar leen nuyu suñu yaa safara dëgg yàlla nga xam ne saa buñ fi ñëwee mu dalal ñu ci biir saalam boole kooku di ñu jox ay teraanga. di ko ñaanal yàlla yàggul ko fi ma borom këram nuyu nañ ñëpp rek ziar ñëpp nuyu suñu waajur yi nga xam ne ñoo ñoo jotaay bi te ñaanal yàlla yàggal leen fi yàlla dool seen wér ci barkenti bi salaay salaam waaye nuyu suñu yaay tamit nuyu ñëpp rek ñu jàng fàtte salaatul fatiha def ko di ci yent bi salaay salaam ñu barkeel tuuti rek ci yent bi salaam bàyyi Habib mooy programme am incha allah bisimilah. demikian ya Allah Nama Jiwa kita Oh, my God. حتى ألقي إليه فما يكون فما يكون في ملكوت الله أو ملكه بكل ما يختص أو يسمى أتاه بقطر ولا يقوم ودور كان إلا وكاه المصطفى عبده نبيه مكرم مرسل وكرم

يا اويو جي جي اچارو مي نو بني سارا تو جي تا لقيتك ونادي إذا أحببت أن نشاء أثرها وتتمنى إلى الجبار لا يعود مجوس عين من الرحيم أشرف الخلق على ربهم كونها أشرف الخلق على ربهم كونها أشرف الخلق على ربهم وخير ما فيه يشأن ربنا تبع لا يغير

عليك كومة الأمر الأمر الأمر الأمر لقد كرمت الحج العدل عدل عدل عدل لقد كرمت الحج العدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل عدل وما يقوم من لقيت قوم سلقونا فحقت روحما وتاب مينا الحمد لله فخلق أتاه بالهدي يدخل لقيت هو العهد والمسحاب ما غرقوا سجعتي يدها مقدام باب لا يؤذيه إليه أتاه بنصير ما يدخل

الحمد لله وعاد الشيخ رباه خير الوجود الذي أعلاه مولى خيره Hey, أصحاب العقل أصحاب النور حتى تتساموا وعلى الله من حال الفوضى من إله الجميع بالرحمن هذا تنبيتنا نعم المهرة متصديق الحق يرضى الفواه من المنى إلى خلف علينا وهي في مواطنك السيوف في إسراء نحو القهر في أهوابي فكان مقوى الفرح إنما على الحين العفاف وأخذ شاعتي رفضت أعطاه فتح النكاح والرحمن والجمال إن المنى Thank you.

الثاني يلد الفواحك من فخر يا رضا إنما الإله هذا يا أولي لا تؤمن المخيب علينا ويوالى وجود الله الحق الباطل ونبيه بحر الأوعى رب العطايا الله المنان إنما يا ويلا يا ويلا أكون المثل ففيها هزيرا إلى أتبع الناس وحيد فيه جمع الفرح يقنا إلى هذا يا يا ويلنا من أتبع المسلم وحسن الميدان يحيى الذين بين بيدنا Sering Babacar sama sëriñ mama ma ko fay ndax fekke na ko fu mu sama tur firnde bi moo di lii bu ngeen wala Wampuri bergesit dengan nendaya arme rubai benda Nilulit mintam tilak simba wakan Bail bayimen Tumadatim walo cagaya Ni aku jafati muy sama yai Pansat muy sama bayi Wan bungan ni walo cagaya ni wawala yéega ngeen ñeege yéeg seen fas yi naari boor lan seen sëri tënk yam ci jaar yoo sin baabu kan naan leen fii hijeen waaw waaw fii hijeen waaw bay daa mi gaaya fii hijeen waaw alaali ba cheikh yi da fii hijeen waaw

Hallelujah

Canada.

مجد في صفيا حيا يا ثاني تركان جبلة حيا كل فيك في شهوته الحقيقة وعمر عباد الأنوار أنواره من دار العدل أنا المسيح أنا المسيح دار العدل

Give me the command.

Thank you.

بعونك ولغيت فتاة رسولا سليها بلا وهنا ذات المولى بدراءتك رسول دون الله الذي لا جي جي جي ايو نبي ته باغا جي جي جي جي جي جي بك والويه فقد كان سابي على الحسد كل نهار تجربتي يا محمدنا سيدنا لا No, no, no, no, no, no, no.

Shurfa, عزيزك الأمينة خليفتني يا أمينة عبد العزيز الأمينة أمينة أمينة أمينة كل أبيب كيوا أبينا إلا كوا وجينا لا جينا وهذا ما حاز لا معارف في داري ومعامل أنني وكان أشجع وأسمع الناس أهوى خلقا وخلقا وخيرا على نبي Thank you. كفينا الشجر على مدينة سائل لما تجمع نبي وعليه أجرينا ما نبي دائما ننند تنھنھو जाम मु Bye. شفيع الخلق ذاك إلا بالله في تعسل الفرق أنا سبيل ہو ہو

وفا ويها

Yeah. I'm I'm ana ñu bëggee di bind nit yi indien yi bëri bëri man maa doon yow yaa ko Mansour wax na ko defe naa ne xaw ma ndax dégg ngeen ko wala déet waaye la mu wax ca cérémonie officielle bi mu amoon na ministre de l'intérieur la mu jottali def ne nañu defaraat pas-pas yi muy tawxidullahi muy wéetal sunu borom subhanahu wa taala Yalla nee na bokk yi inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha Yalla, dama koy wax léeg-léeg ñuy am ma am bis bi ma ko wax fii ci jàkka ji am ku ni te pourtant mooy dëgg yàlla jongoma juy sëy la ju nekk ci kër aawo la ñeneen bëgguma wuñ bu ma kenn indil wuñ yàlla nee na inna man yàlla laa yaxfiru du ma ak an yusraka bi kuy bokkaale ak man waaye tamit wa yaxfiru maa duna zalika li ma yasha loo def ci bàkkaar ak lu mu garaaw garaaw garaaw su ma neexi ma baal la benn bàkkaar dong dong dong dong la doomu aadama di deewaale wala iyaasu billaah yenn ci yàlla musal fekk ba muy dee mi ngi doon bokkaale ak yàlla loolu moom kenn amul kenn mënu ko ram ramu kooku moom li ñuy wax naan dañ koy pëtam pëtamee bu agsee malaaka yi dañ koy pëtam pëtamee rek yóbbu safara ndax buñ gaawul yóbbu ko safara bu ko laay fekkee du dem safara kon nañ leen bàyyi sunu xel ci bokkaale ñun nag dañuy bokkaale te xamuñu ne ñu ngi bokkaale ñun xamuñu ne ñu ngi bokkaale lu ma bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg Cheikh Ahmada Tijani Chérif radiyallahu taala lu ma sopp sopp sopp sama maam ju baax di maam Cheikh Sidi Hadji Malick lu ma bëgg bëgg bëgg bëgg ci sama xol sama maamu kenn kii mooy Cheikhul Khadim su ma nee bu neexee yàlla ak yonent bi rek bokkaale na ak yàlla dégg ngeen ko de bu neexee yàlla ak yonent bi kan mooy yonent mooy Muhammad yàlla nee na ku ne bu neexee yàlla ak yonent bi boo dikki fi ma duma la boo ko tuubul boo doyaalee ma lakkal kon ñeneen waxi noppi kon nag loolu la ñu tere tere nañu nag la ceddo yi doon def démb ba lislaam ñëwoo di ndëpp di samp ay kuura ca taatu guy yaag di ca reen di ay deret ak naan dañuy am ay rabak wala ngay lekk daal di jël benn type daal di nii tuur ko fële daal maa ko jox sama rab yi loolu yëpp ay xeeti bokkaale la dem ca pertaaw ya dem seeti looy seeti gëm xay bu ci li yàlla santaane boobu raybu mooy kumpa nga gëm kumba ci ngëm la bokk boo demee ca alif laam miim zalikal kitaab laa rayba fii hudan lil muttaqin du ca yàlla rek allazina yuminuna bil bil xëy bi dafa tàgg dafa am ñu muy tàgg ña muy tàgg nag mu ne ñi nga xam ne dañuy gëm ne ëllëg am na te xamuñu ne ëllëg am na maanaam gëm kumpa rek na ngeen defaraat pas-pas yi tawxidullah kennal yàlla xam ngeen mooy lan jur mbokk yi jullit bi toog heure julli jot fekk amul njàpp ndax bu ndax ndax bu jullee sans njàpp ndax julleem dana baax déedéet jàpp bi nga jàpp jàpp bi nga jàpp te njàpp li aw yoon moo lay ubbil sa diggante ak sa borom foofu nag dinaa leen fi ñaax ci lenn Cheikh Sidi Aboubacar Sy nee na nañu fonk loo xam ne buñ ko defee day gën a dëgëral suñu imaan te ci imaan la bokk ni ñuy préparé xam nga ne yàlla daf ne allazina yuqimuuna salaata wa yutuuna zakata ñi nga xam ne mu ne dañuy taxawal julli du firi taxawal julli allazina ñi nga xam ne yuqiimuna danañu waajal asalaata julli waajal julli nag ma nga yaa ngay tàmbalee ca ndox ma ngay jëfandikoo ndox mën a laab dama leen di bàyyi loo xel yéen sunu mbokki jigéen ñi ñi ëpp ci yéen lu tax du ngeen julli si juma dama ne lu tax du ngeen julli si juma di julli si juma da ngeen war a julli si juma waaye boo waxee ñu ne ah jigéen du dem juma lu tax jigéen du dem juma duñ ko ci forcer nag su dem su su nee dewuma tamit duñ ko ci bindal bàkkaar waaye góor moom farata moom ci la ci moom waaye nag boo demee ndax e, suñ borom subhanahu wa taala dafa ñag jigéen bëggul dara dara dara dara lu aay di ko laal wala lu ko lu ko yàqal booy ñëw sa toilette bu mel ne toilette pôle sol lu yaraax teg ci as kol am luy yëgu ci yow wekk sa mbopp une heure de temps cuuraay bu gën a neex nga suur ko ci jóg génn di dem parfum bu gën a neex nga tuuroot nga ne da ngay dem juma kooku boo demee jumaa ci sax yow da nga fay am bàkkaar mm-hmm. kon looloo tax ñu tere leen juma waaye lu dul loolu loo mën a sàmm ci loolu toilette bu yem sol mbubb mu jot te fat te yumbox nag bañ a kafu ci yow jot cër yi jot nga dem julli ji jumaa bu boobaa ba juma boo demee nekkal ca place su jigéen kon waajal julli yaa ngi koy njëkkee ci ndox bi ndox nag ñetti façon la yéen yi xëy na da ngeen de leen di ko bari lu ngeen koy wax ci biir daayira bi ndax xale yi di ko juddoo di ko màggee ndax ñu xam ndaxte lu am importance la muy muy muy set sallallahu alayhi wa sallam dafa romb ci ay sët ay armeel gis ñaari nit ñaari bàmmeel kii pend la kii asan la ñu di leen buggal mu ne ah waa ñi moom sama gars yi ñu ne mu ne ñaari bàmmeel yi de ngi leen di buggal bu buggal mu métti sax ñu ne ko yaa rasulullah anam ah moom moom moom yàlla da koo may day gis lu nit lu kenn dul gis sallallahu alayhi wa sallam ma toog jàkkaarloog yéen di wax moom ni mu toog bu doon moom la moo toog di jàkkaarloog man di wax di wax ak yéen mi ngi gis ñii ci ginnaaw te amul bëti ginnaaw kooku yàlla ko ko jagle jagleelam la mu ne kenn kii mu ne ah mu ne li tax ñu ñu mu nekk ci duma yi metti yi bu masaana saw du wisu bu masaana saw du wisu sobe lay doxe ba mu jëndee dañ koy lakk keneen ki ci des nag moom da daan jaxase diggante jullit yi <coughs> da daan jaxase diggante da daan ràmbaaj diggante bi kon attention kon laab buñ ko waxee nag da ngay ut da ngay tànn ñetti xeeti ndox moo am ndox mu laab te mën a laab ndox dina laab te du mën a laabal ak ndoxu sobe dafa am ndox mu ñuy wax ndox mu laab te mën a laabal am ndox mu laab te mënta laabal ak ndoxu sobe ñett yooyu nag dama leen di bàyyi ngeen koy gën di ko tas di ko waxtaanal xale yi ndax ñu xam léeg-léeg nga dugg ci benn toilette te ñun ñëpp nag suñ kër yi lool la dañu ne dañuy fàpp benn bidon walla benn siwu duy ko ndox teg ca duus ba teg ca pot kenn du def loolu loolu dañ ko tere kenn du ko def ndax boo melee nii asan ci sàkkan nga dugg toilette bi au lieu nga àgg suuf booy tuur ndox mu bañ a tis nga taxaw di yërërëri xam ngeen ne ndox bu bu am na fu mu bu dalee day rejeté war dina tax ci sa yére te doo ko yëg ndox mi nga teg ndox mi sobe bi dugg na ci nga ne yaa ngi cay wisu boo paree génn jàpp amuloo julli loolu it nañu ko di bàyyi siwo yi ñuy teg ci biir duus yi ñu di ko siwo nañ ko di ub na nekk siwo bu ñuy ub nga xam ne sobe ko mën a xam boo defee la ngay def ba pare war a laablu Thank you. I'm

Oh,

Move

Come Muhammadu sani kala kala na kala ke kala kala ni Muhammadu na ke ku ke ya na kala ke ko ku ke ama aja ni ko ti sa na ko ni ku ke ama aja ko ke pa ni ko ni la ko ni ku ke ama aja ko ko ni ko ka ni ko to dem

Imam Maodo jëfoo jaani jaani yow la jëfoo yaa nu xamal yoon yow la jëfoo yaa nu jëfoo yow la jëfoo yaa nu xamal yoon yow la jëfoo yow la jëfoo yaa baaba ko li ba abaama kan ci bayi bu jëri baa ba bu jëri baa ba bu jëri baa ba bu jëri baa ba bayi si bayi si bayi wala bayi bayi si bayi wala ama aajo wala ko kele bala ko ama amaado kanyari kuje amaado kuje kuje amaado kuje kuje amaado kuje Yarsin da ba ta bai da ababa kan Matar la أنا تعليم الشيخ أنا تعليم الشيخ تعليم الشيخ ما بدون يلا مبر يلا بدون يا بدون بدون يا بدون كل مرة أقول أقول لنا برم داري وي برم داري كل فوق صلاة وي كذا وي برم داري وي برم داري وي برم داري mooy borom mooy borom. Amina, Amina, Amina, Amina, من الأب الألم الأب الألم حجر يجاهدون يجاهدون يقول أقول يقول لما قلت يقول في يقول أحمد يقول أحمد يجاهدون يجاهدون يقول أقول يقول لما قلت يقول أحمد يقول أحمد Thank you.

انا صفي ايد صفي انجليزي صفي فرنسا رجالي نوبة رجالي نوبة من المولى ابو العباس لا بالي سيري مي عبد المنصور

hijira Amina jënd mu amee fukki at ak juróom benn la ko sëñ Babacar woo di ko doxalal Amina tax ma ne ko boo daan dem Saalum boo daan dem Saalum boo demee Saalum ma ne lii biir gi wàcc na indi fa courant bi indi fa restaurant وتكلما لتسجد الغد غدا تمثال غدا تمثال يبتغي مكان وبيودك يقال عير يخرج في دولة سرد أبعاد المرام ثم قوت المرام لمن فتيوى وصف فهم وقفل defar na jumaa ya defar hôpital ya defar na hôtel ya defar na Dubaay ya kii kay defar Saakoor ya moom kay ku feebar mu faj mu dee mu dajal ba tey ku juddu mu gerte moo daa joxe paase màgg yi Sëriñ Abdu wàcce nga ku ko bëgg sa loxo yi teg ko Sëriñ Abdu wàcce nga ku feebar mu faj mu dee mu dajal ba tey gi ku juddu mu gerte moo daa joxe paase màgg yi Sëriñ Abdu wàcce nga ku ko bëgg sa loxo yi teg ko poussé ak lu addis sa ñaari loxo yi jabar jiribi jooy na saalifa yi xaroo jooy na jiri jooy na mooy gën ci jaay na jiri jooy na saalifa yi maxadam yi jooy na jiribi jooy na jiribi jooy yàlla yàlla xoolal lu may suñu gàmmu lii di mbay si lii na si jaata yàlla yàlla dolli sa gas aadara di jëloon yàlla dëkk gi jubóo loxo yi na jubóo loxo yi set jubóo lii na jubóo lii na

خطر سني فقد قسم المولى له خير قسمي ترخى يمنيتنا ترخى يمنيتنا ترخى يمنيتنا العصب في جسمي بريقة أسمان يدوكرو ملائكة ينكي تاتو تاكل سيدنا محمد وقد أشرف الأملاك آه آه آه آه آه دجل جس فكم سيدنا محمد رسول الله moo tax nag looy def bëgg mu barkeel tàmbalee ko ci turam moom Seydina Muhammad Rasulullah ndax bu nu sàkkee rek moom la Maodo neen wa ma xalaqa arrahmanu shay'an li nafsi siwa sayyidil mahmud wa habibu yow Seydina Muhammad Rasulillah moo tax yonent bi salaay salaam moo gën a taaru ñëpp dafa am bi soxna mu ne ci néegam bi ñëw ba mu yàgg puso bi daal koy tombe sang bi dem ci jàkk ji ba yëngatiku bim ni wii ni tël nekk bi leer ba mel ni bëccëg mooy xam ngeen ne kenn du Seydina Muhammad rasulullah moo tax man mosul xool ko ba mu yàgg rek naan ko Muhammadun ajmalu man fil kawni xalqan wa siyam ka annahu kama yasha suru yow Seydina Muhammad Rasulillah moo tax ndeysaan Umu Hani jigéenu Seydina Ali la moo invité woon ñu ci Jibril moo ko fekk ni ko Muhammad Sabaro moo la invité invitation bu dàq bi kaw asamaan yow Seydina Muhammad Rasulillah tara kaa yónne li yëg سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من رمادنا إنه سميع بصير yow Seydina Muhammad Rasulullah mu toog sa Jibril des tuut nu fëgg asamaan yi benneen Adama moo ko teeru ak malaakaam yi fiiru ko katagato rukutu inna rabbana rabbana nabi santiin mbirum leen sarax naa Borom Santi Bimonogan. What a man,

يا ابن إن كنت في فاكئة ما دمت باقر سرت خير وبزاهد حتى مراتي पीयाम मीता भलो अ بقضية إني أتي أقيد النساء بآلاء إني وأقيدك لا نساء إني أتيتك النساء بآلاء إني أتيتك لا نساء سن بابا يرشي إني أتي أتيت بابسا بأبارك الله برعايتك فبشار إني أتيتك لابسا بأزار أتيتك لابسا بأزار أكشف بيد والآل علي وحبيبي كراي يومي على أبر صاحبي هذا مرادي بالأنبياء نار علي في هدى فتيان Rahman

What the Massachusetts is Thank you.